buy dem Touba mu xam fan la jëm waaye bu demee Touba mu xam lan la fay def hmm. bu demee Touba mu xam njëriñ la nan la cay mën a jëriñoo macha allah li waa ji doon wax Touba dafay yokki leer di wàññi ay bàkkaar hmm. léegi nag nan la ñuy def ñun ba suñuy leer yokku suñuy bàkkaar faru laataa ñu dem Touba moo waral ñu baree baree bari bu safar teeroo rek ñu di ko teeru di ko gàttandu kem ni Cheikh Ahmadou Bamba doon gàttandoo weeru koor hmm. naan lan wa sahlan wa tarhan wa tarhiban bila hadari donc ñu itam ñu jàng ci Serigne Touba ni muy certoo ngëneelu suñu borom yi ñu certoo ko weer wu màgg wi nga xam ne suñu borom dara jaal na ko macha allah noonu lañ tàmbalee di def ay safar di ci def ay bernde di ci def ay jàngale ci ay wëpp ay thèmes yoo xamante ne day tax nit ki kan mu xam kan mooy Serigne Touba ak li mu woote lu mu doon ngir mën a am yóbbal dem Touba loolu am na solo macha allah Eh, dama xamoo tey suñu plateau bi la lañ njëkkee ba xam Zik lañ njëkkee wala islam lañ njëkkee en tout cas yow lan nga gis sañ Fallou. waaw mën nañoo ubbi ak ak zikrullah ak zikrullah baatu yàlla bi ñu ubbee bi. macha allah a taaru. am na solo kon seenaal yun xam naa kon damay wàcce sama lii bala muy jaaxasoo gi zikrullah bi macha allah bisimilah. bisimilah bisimilah.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 la ilaha illallah إله إلا الله لا إله إلا الله بربي على نعنيان سرين من تخايا كفي بربي على نعنيان أمدي مود من فاليا كفي بربي على نعنيان yàgg fee bur bi yàlla ñu ngi ñaan sëriñ Muntaxa yàgg fee la ilaha infal illallah la ilaha illallah ani ndey fal ani baay ndeke suuf moo ni mujjee ani ndey fal ni baay ndeke suuf moo ni mujje ani ndey fal baay ndeke suuf di yàlla yoo aduna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 jaajëfal sëñ Alioune macha allah <laughs> sëñ sëñ Fallou bi baax na waaw Baye Fall noble ban commentaire nga am si bii bii moom wax dëgg Fall fa nga commentaire ñu ko. waaw ndax turu yàlla moom da di lépp. dëgg la. ndax sunu wasila Serigne Cheikh Fall Baye Góor. Hmm. da doon naan ku si kar ba dee amul lay daal. ndeysaan. sunu Serigne Serigne Cheikh Fall borom digal. Hmm. moom nee na kilifa gu la ëpp ay dongo yu ëpp turu yàlla. Hmm. luy tudd turu yàlla. Hmm. moo a yàlla daal. macha allah amul lu ko ëpp daal muy baatu turu yàlla wi mu doon yëkkati. dëgg la waaw macha allah. waaw di si am mbégte contentement daal. loolu am na solo. dañuy naan turu yàlla ci la góor yàlla yi di rawee daal. ci góor yàlla di rawee loolu am na solo kon yàlla na yàlla de suñu zikr chaque fois ñu koy mu nekk suñu xel ak suñu xol ñu koy jëfee si làmmiñ yi sëñ Fall li nag moom foog ma nga toftal ma si quelque chose fo lii foog ñu déclamer si kaw zikir boobu wax dëgg fee la ko jox honneur à Plume BK. bisimilah. defal ci loolu dara. ñu ngi lay déglu. dans notre vie, nous allons parler de lui. Mais c'est sûr et certain qu'on va jamais finir notre dur labeur d'écrire. Il y a certains qui disent qu'il est difficile d'écrire sur lui. Mais moi, à travers ma plume, j'ai essayé de le décrire. Je me suis inspiré de son joli nom, qui est pour moi une source d'inspiration. avec l'aide de ma plume qui m'accompagne tout en espérant écrire un poème plein d'affection. Voulant parler sur cet être nous amènera dans un autre univers, car cet être m'apparaît être l'être que certains êtres voulaient être, parce qu'il fait partie des êtres qui permettent à certains êtres d'être des êtres de la lumière, mais aussi aux autres de surmonter certaines barrières. C'est sans nul doute que vous aimerez savoir qui est cet être. Cet être n'est nul d'autre que Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, le fondateur du mouridisme. Ah oui, le fondateur du mouridisme, c'est lui qui s'est toujours sacrifié pour mettre en avant notre religion qui est l'islam. Un homme vertueux et transmetteur de connaissances aptes à apporter des solutions Chaque lettre de son nom est un métrique, incarnant le rôle parfait de la volonté ascétique, jouant son rôle du croiseur véridique. Sa démarche philosophique et socratique, son goût pour la perfection est stratosphérique. Bamba, personnage réel des réalités énigmatiques, réalisateur parfait des réalités symboliques. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, connu sous le nom de Serigne Touba, héritier légitime et légitimé d'un homme de valeur, l'envoyé, qui incarne toutes les vertus modélisées par le Tout-Puissant, l'unique, éligible et élu, pour préserver et propager les qualités et comportements d'un inspirant modèle, inspirateur d'une sagesse qui repose sur un livre, le Coran. un homme Mohammed paix et salut sur lui et un chemin siratikal mustaqim par décret approuvé par le Tout-Puissant homme de Dieu se par le comportement et éducateur aux approches diverses et variées artisan de la non-violence la culture de la paix demeure la base de son système éducatif honorable homme de séance de culture et de culte. Il incarne un islam pacifique basé sur la recherche du savoir, du savoir-faire et un savoir-vivre en communauté. Architecte d'un Sénégal décolonisé, valeureux combattant qui a compris très tôt le jeu du colonisateur, la culturation et la domination de l'esprit. Déporté sans raison valable pour avoir assumé une vérité non relative. Le cher revient avec les honneurs. originaire de Makebawal. Son œuvre glorifie principalement son Seigneur ainsi que prie pour son idole. Une photo qu'on le lui reconnaît donne une idée de l'homme qu'il fut, un juriste musulman, et se doublé d'un grand poète non attaché à un monde non éternel. Bamba, Bamba, Bamba partout est une exception de ce pauvre univers. salaam <laughs> Philippe Beka <laughs> ah, loolu loolu am na solo loolu am na solo ah, señal yun texte bi saa waay wax bàyyi nga ci xel ak ban commentaire ngeen si mën a defal waaw Bamba parti bi xanaa <laughs> affaire bi synthétiser a lépp waaw synthétisé nañu lépp. macha allah kon loolu am na solo. sëñ Fallou bind bi kawe naa. non kawe na mooy plume BK. Hmm. Euh, tracé na lu bare bare bari. waaw ci li nga xamante ne moom mooy njàngaleem sëriñ bi. te woo nañu ci euh, universalité. Hmm. parce que mënoon naa bind texte bi ci wolof. ñu saa wolof yi kese ñu mën see jëriñu. macha allah waaye it def na ko ci tubaab boo xamante ni. Hmm. képp koo xamante ni sa maam bokkoon na ci ñi. doon bëgg a faagaagal sëriñ bi ci yóbbu ko ci tukkeem bu sori woowa. waaw. mu def juróom-ñaari at ginnaaw juróom-ñaari at ya mu defaat ay at ca gànnaar ñeenti at mu def jolof mu def njaareem ba ni mu ñibbee këram. Hmm. Euh, boo déggee tubaab yi beekaa wax ci tagg sëriñ bi ak xamle ko. waaw di nga mën a xam dëgg-dëgg sëriñ Tuubaa moom mooy kan. wallaahi. te muy teg si bu am solo boo xamante ne wax dëgg yàlla. ñoo hmm. ngi ñaan mu mayaat ñu ko. ci hmm. benn anam. xaw ma da def clip. xaw ma da koy mais daal ko jëmmal solo la macha <laughs> loolu am na solo loolu am na solo mais bàyyi ma dem wër ji pilimu waa kër maam Cheikh Ibra Fall comme ça ma dem si Baye Fall noonu ma xool pilimam. <laughs> et eh, Baye Fall Baye Fall fi ne ma dama curieux foog ma xam sa pilim quoi waaw macha allah. waaw <laughs> ndeysaan bëgg yow doom. waaw dama bëgg yër sa mbind. Ah, ndax daanaka man waaw. fu may dem daa am fa nga xam ne. Hmm. man moom laay commencé daal. dégg la waaw muy. sëñ sëñ naa leen man daa am sànq tur yàlla bi damaa bëgg nga yëkkatil ma ko rek ca kaw. rek <laughs> ngay wax su ma neexee nga <laughs> wàccewaat ko rek. ma jéem a xool lu may jox. macha allah kon xaar kon ma wàcce waat sama son bi kon maa ngi wàcce sama son bi macha allah. sàmm faal bi rek. waaw aj ba mu neex la wàcce ñu dem. wàcce ñu dem. <laughs> waaw sànq ko eh? aje woon sànq rek bëgg naa de ah. mm. bismillah la ilaha illallah la ilaha jeey damel Déthié Fa Ndiogou Damel Déthié Law Damel Samba Yaaya Faal fils de Mame Seynabou Ndiaye et Cheikh mu du Rokhaya Fall père de toute père de toute personne qui se dise Baye Fall lamp bi Bamba taal leeral nga diine ni yaay la ilaha illallah kamal

L'étienne foi, Dieu nous envoie sur terre un homme hors pair, un homme qui s'est bâti pour l'islam et la terre, l'homme qui a dépassé les repères, le sauveur des Baïfal dans l'univers, frères, sœurs, entendez que cet homme est comme un père ou un grand-père dont je suis fier, il l'homme solidaire, lampe Fall, Baboul, Mouridina, Maïssa, Digue, Kumba la lumière et le fer dit Tariqa Mouri, Diage, l'admire sans narcissisme car il est l'absolutisme. La ilaha illallah. La Dof Diop. la ilaha illallah. Dof Diop entendez que cet homme est mon homonyme, mon âme, mon arme et ma flamme, c'est lui qui nous a montré les normes de Cheikhoul Khadim, l'ampoufal a éclairé la vie des hommes anormaux. Hmm. Grâce à Bouri Diallo. La mission de Khadim Bamba est L'homme majestueux, Ibrahim Fall, le talibé vertueux, Maïssa Bigé Kumba Fall, le baïfar rigoureux, Mam, Cheikh Ibrahim Fall, l'homme qu'il a en cœur de bout en bout. Ibrahim Fall, l'homme serviable, Lampe Fall, le notable, Maïssa Bigé Kumba Fall, l'incontournable, l'incontestable, l'ennemi des diables, Baboul Mouridina, l'honorable. L'amour que je pour mon homonyme n'est pas hyperbole car Cheikh Rafal est mon parabole et mon xool l'amour qu'il portait en Bamba était indéfini car il dépassait même plus l'infini grâce à Bouri Dialla les Baye Fall sont service d'Allah ils se réveillent en alhamdulillah et se de la ilaha illallah et montrent leur joie à travers akasa tabarkallah fa Allah cey maam ma Cheikh Ibrahima Fall Lamp être Baye sagesse Seynou Baye Fall c'est là classe juste en nous faisant face vous notez l'élégance et la noblesse chez nous Baye Fall on privilégie les actes aux paroles c'est cet art agréable qu'incarne Cheikh Ibrahima Fall lamp notre parabole Ibrahima Fall notre docteur Maïssa Biga Koumba Fall notre gouverneur Maam Cheikh Ibrahima Fall lamp notre bonheur daf jóob tey laa koy wax ki mu doon ndax moo ma def li ma doon hmm. moo ma dind ci lu bon teg ma ci yoon wax ma lu am murit war a doon Cheikh Ibra tàmmal nañu lu ñu tàmmul woon Cheikh Ibra sañ loon nañu lu ñu sañ woon tax na tey fu ñu dem gaay di ñu ndamoo ko tiitaroo moo tax ñun dañ koy sant bayru ko def na nañu notable waaw ba tey jii ñu wuyoo Baay Fall noble esprit d'un voyant cœur d'un croyant une vie Baye Fall ma BFN l'élégant jërëjëfati Serigne Touba jaarama maam Cheikh Ibrahima Fall lam jaaraw lak Serigne Cheikh Fall borom digal sunu wasila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 tabarkalla fa allah cey maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله Cheikh Ibra la ilaha illa dellu sant bàyyi góor donte du moom duñ mati góor kuy ngóoro wóor naan maa di moom da nga xamul kay bàyyi góor bàyyi góor ma ma xamoon boo ko xamoon dem sa baay xamuloo te laajuloo ku xamul te ku xam jarta toppam xelam xanaa xamoo ba yàlla ne fakku sab teg ca àllu la laaji war kon laaji leen ka gën a xam boo ko mënul noppil te wëy cheikh baay góor yaay ki nu doy yow lañu ñu am yaa nu gënal yomal xiyaam buñ la gisul kuñ mënti am faal yaa nu ko gënal melokaanu xaatim laa fas yéene xaatim ci barkeb xaasim moo di ahmadul xadim di xadimul xadim di dëgg-dëggi xakim di fees sunu xol wallahi la azim hmm. taxawaayub sang bala yoroon du woon mu yegg ci lool du am daama yi digg dóomu la defoon Cheikh Bamba aji xeereer la woon kawar gu gudd la yoroon su muuraay wa nee lar xet si kim wa di laas di saf wurus moo ko jëkk ay faas moom la muusal kalim waxoon ca way wa xaadim bu daa dox kum ca àndaloon moo na naan ay laa ilaaha illallah laa ilaaha joow yoxo ci dox daawul gestu yit da daa wëlbati jëmmam tey jëmm jaa woosoo nit néewal lekk rek ko waral cëy moo ko sàmm sàmmi cëram ba duñu wutal lu dul alquraanul karim لا إله إلا الله لا إله إلا الله melawu xar kanamam dafa xeereer aw cacam xàmmewul aljumaaki dibéer Cheikh Bamba doonoon ku dal rëy am xel yaatule ko amug yëg ni taw ci nawet setug yaramam foo ko takk mu weesu ko joccoliinam weex ga firndeel na ko daan kaalawu kaal ak sóomóor sax ca xar kanam ga daanaka lépp lay muur laa ilaaha illallah daa sol cey xaadimu rasul bari yërmande rafet xol nga gis naa ko ci seyxu saalihu wa innaka la ala xuluqin la daa doxee baayu saalihu saalihu ñaata fan ñaata ayu bés weer ñaata at na daam daj lu janoor juróom ñaari at ca tukkeem wa siw na waaye fanweeri atam yaag ñetti taroon na tàggale daam ak njaboot ga lépp ci ay nar bëgg nërmeel yoonam ak lam ca nar gisul Cheikh Anta gisul Ibrahima moom soxna Faati gisul Moustapha ak fadloog borom taar lil Moustapha na waytu maaju jaddidu la woote ngir jëriñ jaam ñi xoolul ci ak juddu

néew nañ leen ko waajal sunuy tuyaaba nañu ko jóor mu defi jal sunuy banki bàkkaar nañu nërmeelu ba daj weeru safar wi terooy def ci ñun ay jeexit màggal gi ñëw na nañ leen ko waajal sunuy tuyaaba nañu ko jóor mu defi jal sunuy banki bàkkaar nañu nërmeelu ba daj déficit weeru safar wi terooy def ci ñun ay jeexit delloo sil jóob delloo weeru safar wi ñu neena loon talaata ji it ñenn ñi jël gaafa loon boobee la noon ya fab ku tedd kii fexeel tàggale koog njaboot am njàngaleem ñu bëgg a nërmeen xarajtu yowma sabti saamini asar di xidmatil muxtaari di xidmatil muxtaari li xidmatil muxtaari fii chahri safar ndeke tukki bi am na sababu baatin ju wér xidmaal la woon ci bépp Mbacké Barry Mbacké Barry fut témoin de ce glorieux départ exactement le samedi 18e jour du mois de Safar pour une destination méconnue on lui visite par par Sababou Khaybati débute la réponse du Jambar Djewol Djewol fut témoin des pas de la sentinelle de l'islam de la sentinelle de l'islam où il a renouvelé son engagement au maître des âmes à devenir auprès du sublime héritier d'Abraham, Khadim Rasoul, sauveur des hommes et d'âmes. macha allah loolu am na solo loolu am na solo <laughs> kaddu yi xam naa ne à part 18 safaru le 23 musim mu tey moo nar a dàqalee safaram fii fii ci réew mi. solo yaatu <laughs> eh, yaa ngi déglu li fiy génnee. waaw lii yëpp wax dëgg yàlla. macha allah macha allah xam nga man dama waxoon tey dama lay mere parce que sama jëwriñ bi bëgguma dara lu ko dara nga koy gàkkal te sànq da nga ma nuyu rek gàkkal sama jëwriñ bi. voilà kon c'est kon maa ngi mën mënoon juboo loolu kon loolu kon c'est bien. au fait euh, xam naa damay ñëw aussi si Plume BK comme ça tamit aussi ñu échange un peu euh, Plume BK yow qu'est-ce que nga nekk taalibe Bamba. waaw. Hmm. dèjà euh, Cheikh Ahmadou hmm. muy bu muy woote yoonu Mouride. waaw. amul woon amul woon kii nii bàyyiwul woon kenn daal. dëgg la maanaam yoonu Mouride mooy Mouridul Laaha. waaw te ku ne Mouridul Laaha mooy yoon bu jëm si yàlla. dégg kon damay jàpp ni ñun ñëpp ay murid leen hmm. muy tijaan beeg muy ñeseen beeg xaadir hmm. beeg laayeen beeg ñëpp ñëpp ay murid ça c'est vrai ça c'est la woote woon hmm. maanaam wootewul woon ay kii ay tarixa dëgg la maanaam muridullaa loolu du tarixa ça c'est loolu benn yoon la bu sëñ Tuubaa woote woon dëgg la muy muridullaaha mooy yoon bi jëm si yàlla képp ku nam ma dem si yàlla rek ñu ñëw jël yoon boobu macha allah si yàlla loolu am na solo kon muridullaa te jii nga nekk murid wala nga bañ a nekk murid yëpp ma damay jàpp ni Hmm. benn la quoi parce yoon yëpp si yàlla la jëm dëgg la yoonu tijaan beeg xaadir beeg ñeseen beeg laayeen beeg yëpp si yàlla la jëm dëgg la kon tey jii maanaam euh, ay tarixa loolu si wax la waaw mais lu nekk si xol yi ñëpp xam na te jàpp naa lu nekk si xol waaw gën a am solo ko lu nekk ay jëm ça c'est moom dan ne lim bind si xayma ëpp na sax sept tonnes mais lu tax ngeen di bindaat si moom parce que lim bind dafa bari lu tax ngeen bind si moom <laughs> waaw moom. bindul <laughs> si moom. waaw loolu tax yéen ngeen bindu si <laughs> bindul si moom non est-ce que ko eh, Baye Fall non est-ce que doo xoolal réponse bi. sëñ bi bindul si moom. non non mais bind na si ay jaar-jaaram. non moom. waaw bindul si moom si jaar-jaar la bind. si ah, jaar-jaar la ah, mais soo xoolee. looloo waraloon sëñ Moussa Ka sëñ Mbaye Diakhaté ak sëñ Mor Kayre. waaw doon bind ci moom. d'accord d'accord moom mosul bind ci moom. d'accord moom bindam bi yëpp yàlla saa boroom la ko jëmal. waaw ak si euh, Seydina Mouhamad. waaw macha allah. parce que maa ngi koy wax sama benn ma ne à devenir. Hmm. moom garaatu xaadimul rasul la doon sàkku fépp daal. dëgg la. waaw ba may maanaam kii maa ngi koy kii doon retracer histoire 18 safar xam naa ci kanam tuuti dañ ci dem. waaw waaw waaw mais moom bindul ci moom daal. macha allah moo waral ñun. waaw bind ci moom lu jafe la nag. ndax Sëriñ Tuubaa sooy wax poète. waaw moom mu ngi au sommet daal. ça c'est waaw mun pour bind ci moom doo xam ne fooy commencé daal. dëgg la. Béka moom mu ngi koy wax ci texam bi soo ko teewloo moom mu ngi koy wax daal. waaw waaw macha allah kon loolu am na solo mais nag euh, sëñ Fallou keroog bi nga déclaré moom suñu grand prix si Lamine boobu moom mën maa ko ñaan sama bopp personnellement. waaw mën naa kanam <laughs> ah, dugg ci waxtaan parce que parce que boobu man man moo ma yëgal sa ceeb si waaw xam naa après dinaa ko introduire. mais mais mais li ma ko laaj aussi bëgg naa ko laaj mooy li ne sëñ bi dafa bind li ëpp sept tonnes li tax ngeen di bind si moom yéen maanaam sëñ waaye man man tontu ci loolu. waaw waaw loolu Baye Fall Noble lay rejoindre ah. waaw parce que sëriñ bi moom boo xoolee. waaw euh, dafa jël bind. Hmm. def ko mu nekk loo xamante nii da koy da koy da koy dimbali ci li nga xamante ne moom mooy li mu woote. Hmm. ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi moo tax ma ni ndekke tukki bi am na sababu baatin ju wér. Hmm. xidmaal Moustapha la woon ci bépp weer. macha allah léegi sëriñ moom mësta bàyyi. Hmm. ci di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa ak di julli ci moom. Hmm. salaatu sitta bi mat si sitta. dëgg na tahti ibata donc dafa nekk ci diggante tagg ak ci diggante julli. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam addunaam nag. lépp ci loolu la ko jëmee. bind na ay téere yoo xamante ne dafay jàngale. Hmm. li ñuy wax iman islam ihsan hmm. lii tax nit ki gëm yàlla mën a mat lu mel ni ay tasawudu sixaar lu hmm. mel ni ay mawaahibul quddus ak yenn téere yi nga xamante ni itam. jëmale na ko foofu. ak téere yi nga xamante ne dafay tarbiya nit ki ci mu xam moom bu gëmee yàlla. nan lay jaamoo yàlla. mooy wéyee santaane yàlla ci kaw suuf daw ay tereem. lu mel ni jawharu nafis mu nekk wayu. wesar gi nga xamante ne Abdourahman Alaxdar defoon na ko. waaw ñu gën a xam téere bi ci Alaxdar yu ak téere yu mel noonu. d'accord waaye it mu bind ci ci ci lu rafetal jaamub yàlla doomu aadama bi lu mel ni euh, téere bi nga xamante ne naxjul qadaayil xaaj la tudd wala mu nawiru sudur wala mu lañiru sudur daf lay gën a yéegale ci côté spiritualité. Hmm. waaye lépp looy def li wajhi llaahi lay doon. donc boo xoolee Serigne Touba ay mbindam noonu la tëree kon moom bindutoon ci boppam comme ni ko Baye Fall Noble waxee. d'accord li ciy am daal mooy yàlla borom bi defal ko ne ko tuddal def gi. d'accord mooy Dof Diop nga defal ma. waaw ne ma sëñ Fall jox naa la ndigal nga wax ko. dëgg la ndax yenn saa yi da ngay defal nit ne ko bu ko wax kenn sama diggante ak yow la. dëgg la waaye nag wane say kéemaan dina yegg ci. Hmm. defal nit. ne ko am nga ndigalal tudd ko fu la soxla. dëgg la nekkal interprète. voilà Serigne Touba nag. Hmm. loolu muy tudd ci as tuut ci boppam. waaw li ko sunu borom defal. mu di ko tudd. Hmm. ngir sante ko suñu borom. macha allah li Cheikh Béthio doon wax sant bu nduree kañ des na. wala ngay dégg ci ay waxam yoo xam ni. lu mel ni hmm. yaa maalikal mulki nii waa saa'ata duuna jaman. dégg nga mulki wal malakuti dahri yallaa fa gi demee noonu. Hmm. léegi nag ñun buñ jógee di bind ci sëñ bi. Eh, day day day day day day mat tamit nga laaj question benn noonu. dégg la ndax ñuy bind ci moom. mooy dañoo war a jàngale Serigne Touba. macha allah dañoo war a xam kan mooy Serigne Touba. waaye dañoo war a gën a waggar Serigne Touba. waaye dañoo war a mën a jëriñu ci Serigne Touba. dëgg la ba plume beka mës nañ koy wax. ne Bamba mboolem bindee fi la wax du murit du jullit te it du nit. dëgg la donc dafa nekk loo xamante ni ñun buñ ci bindee rek dañoo jubloo jàngale. macha allah moom la beka di def. moom la sëñ Baye Fall Nogul def moom la Serigne Fallou Bey def moom la bindkat yu bare bari def. kem Serigne Moussa Ka kem Serigne Mbaye Jaxate comme sëñ Mor Kayre wala sëñ Samba Diarra Mbaye ak ñu macha allah kon loolu am na solo. xam naa damay ñëw nag si Marème parce que aussi Marème xam nga màggal gi moom bu ne màggal maanaam ponk bi bi bi si njëkk ou bien ponk bi nga xam ne man su ma demoon tey ba Touba man mooy bi njëkk si man mooy bernde yi wax dëgg fa la parce que man dafa am jour yoo xam ne man Njaay laay sant du ma ko nëbb quoi ay jour màggal yëpp sama sant dama koy jaay sant Njaay daf daf santal Diop rek. non màggal ko moom Ndiaye laay sant bu màggalee ba suba sa nag su ma ñibbi su ma yeggee ba jam ñaaw ma sant <laughs> ma sant Diop. en <laughs> fait waaw. xaw a sant Ndiaye. loolu loolu am na solo au fait aussi bu ñuy wax tey si benn yi. mu nekk loo xam ne tey du moo sax léegi màggal gi benn jour benn la mais léegi trois jours de benn la. on na de bernde aussi dafa laaj aussi organisation am nun ko war a mun a defee pour ñu mën si jëlee aussi tamit maanaam benn aspect sanitaire tey nañ gis benn saalum saalum dem rek xëy rek commencé ndekki ay nen xam nga saalum saalum du leen may dara loolu aussi tamit si aspect boobu tamit aussi madame vraiment bëgg naa tamit ñu échange si parce que tamit euh, bernde neex na trop mais naka lañ ko war a mun a defee aussi moo ëpp solo allah. Euh, solo. Hmm. Cheikhul Khadim bi muy wootee màggal bi c'est pour ñu santale ko yàlla. donc bu dee dañ koy fekk ci loolu ñu dajale ay millions de personnes. donc bernde yi loo xamante ne si lu mënta ñàkk la. waaye foofu dañuy taxaw rek fàttali doomu aadama yi lan mooy alimentation équilibrée. maanaam lekk koo xam ni bu set la bu sel la te du la gàllankoor ci dara. ndax lekk nu koy maanaam li ngay jënd. pour euh, consommer ko. Hmm. ni muy amee ay euh, ni muy ni muy amee ay bienfaits sa yaram noonu lay amee ay inconvénients aussi. donc lépp ça dépense si utilisation bi ak euh, ni nga koy jëndee. ak lekk yi ngay jënd. moo tax d'abord lu njëkk mooy nga xam lan mooy alimentation équilibrée. donc foofu damay taxaw bàyyiloo xel nit yi que ni boo jàkkaarloowee ak même si yenn saay di nga toog ci ndab ak ñu bëri di lekk. donc ci loolu war nga mën a bàyyi xel mel ni comme si da nga jàkkaarloo benn assiette. Hmm. léegi assiette bi boo jàkkaarloo ni moom nii wa un quart assiette bi. waaw war na composé wu li nga xamante ne si moom la wax ay protéines maanaam soit mu nekk ginaar wala yàpp wala jën wala nen. dëgg beneen un quart bi constitué ay sucre. d'accord mooy li ñuy wax soit euh, mën na nekk ceeb mën na nekk. Euh, mm, mën na nekk ceeb mën na nekk dugub mën na nekk pat mën na nekk. Euh, ñebe wala haricot yooyu. yu céréales yi quoi voilà céréales yi ak euh, féculents yi ak yooyu yëpp si biir. d'accord donc bi nag fruits ak légumes la war a constituer. Hmm. lan moo tax ndax dañoo riche en fibre déjà boo amee benn alimentation bi nga xam dafa riche en fibres day te dalay permettre nga am benn euh, digestion boo xamante ne si bu normal la. d'accord donc loolu aussi dañuy gën a seetlu tamit. Euh, si période màggal bi d'habitude dañuy gën a valoriser suñu plat locaux yi. Hmm. lenn tamit am na Sénégal dañu tàmm di lekk di def un surplus surtout si dawlin bi dañoo bëgg tamit lu wex xorom. maanaam lu équilibré quoi. waaw voilà organisation mondial de la santé daf ñu recommander cinq grammes de sel par jour te loolu lu ñu war a bàyyi xel la. cinq grammes tuuti na de. ah loolu la ñu recommandé. si vingt quatre bi yëpp. donc ñu bañ a dégg. waaye tuuti quoi vraiment. waa daara ji la ñu a dégg. yooyu eh, eh, eh, lu ñu war a bàyyi xel la dëgg la. donc euh, woote na tamit ne euh, ku am ginaar ba gëléem. Hmm. nga rey ko donc foofu damay ñëw ci ginaar moom daanaka bëriwul graisse. d' accord donc bu dee yàpp yu xonk yi nag moom ci ñoom lay ñëw ndax. Euh, yenn saa dañuy tase ak yàpp yi nga xam ne dañoo duuf lool. Hmm. maanaam dafa bëri graisse. te graisse bi te yàpp bi boo ko tegee nii ba koy waaja a boo ko xoolee rek yow jàppal ni lépp lu weex loo si gis rek poison la ci yow ndax ay graisse saturée la te graisse saturée yooyu noonu boo ko lekkee euh, maanaam boo boo boo xoolee graisse yooyu boo ko tàngalee sax boo ko tegee day woyal boppam d'accord donc boo ko lekkee tamit noonu lay mën a yenn saa noonu lay tasee sa yaram bi donc mën na mën na mën na ñëw ba fatt yoon bi nga xamante ne si deret bi fa la war a jaar. d'accord te loolu la plupart muy indi problème maladie cardiovasculaire yi. AVC yi muy indi hypertension artérielle yi. Hmm. ak yeneen yu demee noonu. dëgg la boo xoolee euh, am na benn enquête STEPS bu ñu defoon 2015 sax. fii hmm. au Sénégal. waaw ñuy wane que ni ñetti nit yoo dox yoo gis yi dox yu ne kenn ki am na hypertension artérielle. Hmm. maanaam 30 pour cent. dañ ko defoon ci jeunes yi nga xamante ni ci euh, sont âgés de ces de dix sont âgés de dix neuf de dix huit à soixante neuf ans. soixante neuf ans d'accord voilà. macha loolu lu am solo la ñu ci bàyyi xel. dëgg la voilà sinon rek. Euh, sinon Ndiaye. Ndiaye nii euh, Ndiaye nii. Eh, eh, ah, xam nga boo xool sànq yaa naan cinq grammes de sel. Mhm. par exemple da ngay gis tey benn sëñ Fallou. Mhm. sëñ Fallou Bey. day bokk loolu moom si nettali ak mbégte mu ne bi ma xëyee tufe laa ndekkee xam nga tufe dèjà dafa bëri sel bëri bio ba pare aussi sëñ Fallou heure añ jot ñu taayalaat ko méchoui yi mhm. mu ne après ma rey sam bopp si méchoui bi ah. guddi gi jotaat mu jëlaat ay brochette boole kook yeneen ak yeneen mm. dèjà loolu day leer na waxuma la 5 grammes de sel mais 25 grammes de sel mi ngi waaj a dugg si nag. te moom ba pare ni ni ngi noonu du teel a reer <laughs> boo xool du matin au soir dañuy lekk gras. Mhm. du matin au soir dañuy lekk gras. ba pare aussi am na ñoo xam ne sax euh, dox du waxuma la sax dox mais dañuy yendoo tëdd. maanaam dañuy yendoo tëdd lekk gi di ñëw bu lekkee ñu puusaa tëdd. léegi nag maanaam yendoo lekk gras boobu. ak excès de sel boobu aussi tamit pour man war na mën a xool aussi nag lañ koy mën a réaménager nga xam ne nekkul ndékkee tufe rek. vraiment si kii la mais nit ki war nga mën a xool loo xam ne war nga ko ndékkee loo xam ne vraiment di nga mën a waajal añ bu baax. mais sëñ Fallou Bey danaan man tuufee laa ndekk pare añee mes yi dafa yooyu yëpp boo xorom saa bari <laughs> lekk naa lekk naa lekk naa naan naa cas Marème li mu maa ngi nuyu euh, maam Ndeye Diagne yaa ah, Ndeye Diagne depuis ngeen ngi sama maam la mu ngi toog jàkkaarloo. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan bëgg gi ñuy bëgg sëriñ bi. waaw day tax bu ñuy déglu rajo sax day mel ne dañuy dañuy seetaan rajo macha allah macha allah waaye nag yàlla na yàlla wéral. amiin yaa rabbal aalamiin sëriñ Mour mu ngi nekk depuis Kër Mbaye Fall. Hmm. Euh, macha allah ñu ngi ñuy ñu ngi message nii. macha allah Marème li mu wax lu am solo la ci wàllum berne yi. Hmm. ndax ni ko sëriñ bi waxee rek dañ ma santale yàlla ci ci ci ci ci xeetu cant yi. Hmm. ndax bu ñu waxee alhamdulilah rabbil alamin day am ay xeetu cant yu taxaw. dëgg la sëriñ bi nag bu ne ma santale yàlla day bëgg ñu jaaree ci xeetu sant yi yëpp. Hmm. ñu sant ñu ñu ñu sant ci suñu borom. Hmm. mooy fi mu ne duñ yam rek ci naan yàlla jërëjëf. waaye dañuy sant ñun jaam ñi suñu diggante suñu biir. loolu da ciy am solo moo tax. màggal gi bu weeru teroo rek. Hmm. dañuy mel ni Baye Fall noble. <laughs> ndeysaan on devient souriant. <laughs> donc dañuy fexe ba lépp lu doon métti. waaw naqar wu ñu ëmbaloon doomu aadama. waaw dindi ko. dëgg la waaye ñu santale ko ci alquranul karim bi nga xamante ne. Hmm. moom sëriñ bi sax waxal na ko boppam mooy sama docteur. dëgg la may faj su ma feebaree su ma wéetee moom mooy wéttali ndax nit ki ñëwoon ci moom ne ko ma dama ragal wéet mu ne ko del jàng alquran. macha allah donc sëñ Tuubaa kooku la. dëgg la mooy ku ñuy woola ci lislaam ku ñuy woola ci alquranul karim ku ñuy woole ci sunna sant sallallahu alayhi wasallam sunna nag lislaam mënoo cee génnee bernde hmm. mënoo cee génnee teraanga dëgg la moo tax mu wax ne nekk ci sama dëkk bii di ma gàttandul samay gan waaw euh, képp ko ma koy defal mënoo maa defal lu kawe loola macha allah boo ñëwoon ci moom sax fekk ko njaarim noppi ne ko damaa bëgg a dem siyaare ji tuubaa danaan man de xaw ma woon ne sa yitte ju kawe yegg na foofu ndeysaan donc bu fekkee nag ñu ne tam sëriñ bi dafa recommandé ñu nekk Touba di ko dalal ay ganam. Hmm. man bu ma nekkee ngin ngi neew mbaa ma nekk ndakaaru sax su ma demee Touba damay jàpp ne ci ñi war a dalal ay gan lay bokk. dëgg kon day baax ma am sama wet ku mel ne soxna Mariam. waaw mu wax ma ni nga xamante ne noonu laa war a agencer lekk yi. Hmm. bernde yi. mu nekk loo xam ne la da ciy ne ah, lim ne <laughs> man loolu daf ma tiital des fois gis viande boo xam ne blanc blanc sax ëpp rouge rouge yi quoi. boobu nag aussi doy na ci kaw yëpp. da war a dagg ko ah, da nga war a dagg éliminer ko. waaw da war a wàññi graisse boobu noonu yëpp teg ko de côté. d' accord voilà moo tax mais duñ def loolu de. waaw duñu def loolu <laughs> yenn saa yi yenn saa yi dañuy dem sax si kiy jaay. yàpp jënd yàpp bi am graisse bi. Oh. yenn saa yi jënd graisse bi tegaat ci doole si kawam. oh là là te à éviter. d' accord voilà loolu yëpp c'est à éviter. macha soo paree nag même am na ay méthodes yoo xamante ne si war nga ko mën a utiliser. par exemple euh, yàpp bi soo ko tayee. waaw graisse bi si nekk yëpp dina wàcc. di nga ah, am lekk bu ah, sain pour pour gars yi di tay yàpp yi. waaw alors kër waral ko di ko récolter kër macha allah. am na aussi ñi nga xamante ne dañ koy togg ci four donc boo demul ba am loolu yëpp mën nga ko aussi euh, kii mën nga ko mën mën nga ko muusal. waaw ndax boo ko muusalee di gis boo ko après booy génne yàpp bi sax di gis graisse bi dafay des. ci kii bi ci marmite bi noonu. d'accord ñu dellu cosaan. macha allah léegi nag soo paree nag bu la neexee nga lakk sa yàpp ba mu neex. waaw foofu damay bàyyiloo xel nit yi. waaw su ñuy lakk yàpp bi nañuy moytu. safara bi di laal yàpp bi. ah baaxul. non non loolu moom. loolu moom dañ ko war a jël teg ko ne. <laughs> parce que mais safara soos di ko laal moo koy safara. Ah, <laughs> ah, bi. safara bi suy laal yàpp bi. waaw day am ay composés yu ñuul yi ngay gis ci yàpp bi. bien waaw. composés yu ñuul yooyu noonu. waaw dañoo nocif si suñu sante dañoo dañoo toxique. d'accord ay substances yoo xam ni sont cancérigènes la. d'accord comme par exemple ay euh, amine hétérocyclique ak yeneen yu mel noonu. oui. te cancer nekk loo xamante ne si da koy lekk tey am am ko tey loo xam sa yaram da koy togg la. dëgg la donc benn impact lay am si sa sante mm. bi nga xamante ne si bés bu bu la bu la leeree bu la boo amee ay firnde kañ dal na la doo xam foo koy waxee. macha allah seen sëñ Fall ma xam ban problème ak jëtetig yi maanaam ñoom dañoo dox sa diggante ak sa bànneex quoi <laughs> parce que tey loolu di noir naa loolu affaire yi comme boo demee dibitére yooyu mais loolu mooy caf yi quoi ah, ah. tey boo xool tamit ay taux de sala yooyu xanaa beekaa njaay la sant parce que mi ngi tàkkamtu gi rek quoi ah, waaw yàlla waaw baaxul waaw mu ne ko neexul mu ne ko <laughs> maa eh, eh, baaxul donc ñoom it ñoom it li ñuy tere tamit. waaw neex. na trop waaye vraiment vraiment. loolu tamit war ngeen ay pexe de. ah oui ah oui ou bien ou bien ay équivalence yoo xam ne bu ñëwee. par exemple ñu interdire la sel ñu ne lii boo ko defee dina saf comme sel mais du am benn inconvénient xam nga tey boo xool diwlin yi am na huile yoo xam ne mm-hmm. bon du am inconvénient quoi. noonu tamit la war a mën a amee nag ay équivalence su sel ak yeneen ak yeneen. Mm-hmm. mais tey xam boo xool sànq maa ngi naan lu mel ne journée benn yooyu nit ñi dañuy lekk gras mais yan conseil nga mën a jox ba nga xamante ne dañu lekk moins gras nga xam ne añ bi rek mooy gras quoi. waaw léegi nag foofu li tax ñuy njëkk a def sensibilisation yi ci waañ bi ñoom la ñuy njëkk a waxal xam nga chaîne la. waaw parce que ñoom yéen ñiy lekk rek mënoo leen éviter éviter ba doo leen lekk li nga xam ñuy dugg si waañ bi ñoo koy togg. ça c'est moo tax ñuy dugg si waañ bi ñoom la ñuy njëkk a waxal. Hmm. donc bu ko defee foofu ñoom bu ñu bàyyee xel graisse bu bari bi nekk si. yàpp bi ñu wax leen tamit ñu def euh, diwlin boo xamante ne si bu yam la bu bañ ëpp maanaam ni ngay xoolee ceeb bi nii ngay gis diwlin kese nga def diwlin bu yam te foofu yaakaar naa euh, bépp jigéen bu nekk ci waay ndek sa nekkul kese ngay togg hmm. mais da nga war di gérer da nga war di planifier da nga war di organiser ressources yi ngay utiliser pour mën a togg et ci loolu war nga mën a xam par exemple mbana bu nekk lii moo si dem si diwlin wala bu dee maanaam nga maîtriser yow euh, quantité bi ngay togg. dëgg ci loolu nag yaakaar naa du am lu ëpp loo xamante ni si dina mën a lor doomu aadama yi. kon kon foofu moom jëruñu waañu foog ñu defal formation diététique. loolu moom il faut ñu si bàyyi xel. oui parce que nutrition moom c'est que ñëpp la intéressé. ça kenn mënul xëy suba ngoon doo lekk wala doo naan. ah bien sûr chaque jour di nga jël sa xaalis liggéey ba soon jël sa xaalis dépensé ko dem jënd loo lekk donc li ngay jënd war nga xam njëriñ li. ah bien sûr li ngay jënd mm. war nga xam ban importance lay am si yow mais pas mu lay lor. dëgg la. macha allah. ah loolu day am na solo kon kon kon sëñ Fallou kon ñi géré waa ñi foog gars yi sensibiliser leen ah. parce que aussi bi mu ne mbana da war a xam bu ci nekk ñaata kanti moo si dem. ñun fii loolu amu fi ah. barki démb maa ngi dégg benn jawrin mu naan mbana café moom ñetti kilo la si def. ñetti kilo café. dafa bëri wala war a foor moom loolu wax benn jawrin démb. non dafa loolu dafa bëri wala dafa dafa faible. après mu dégg ma. ma ñetti kilo dafa excès wala dafa néew. non xaw ma nag kan mbana bi ak ñaata kii la ak ndox bi muy def ak yooyu. parce que xam nga moom ku nekk ak. yooyu noonu ñoom ñoo ko gën a maîtriser. waaw café moom bu ci wax. lu may gi. moom bàyyi ñu siy jaare rek di wax ne jamono ji jaaykat kafe yi ñu ngi dund lu metti ndeysaan ndeysaan ndax daa mel ni kafe doom bi. dafa cher jamono ji waaw dafa cher duñ ko gis sax ñu si bari parce que kilo café mu ngi 5000. parfois 6000. ñenn ñu bari sax jaare nañ fa. bàyyi jaay bi daal ndax doom bi dafa metti trop trop trop mais lu waral augmentation yi. waaw parce que ñu bari ñi nee nañ doom bi moo yokk daal. ñenn ñu ngi koy jaayee kaas 100 francs kaas bi. dañ koy jaayee 100 francs léegi ñenn ñi nag duñ ko nangoo jënd man moom café aw ma ci problème ah. lu mu jaay 2000 suñ ko doon jaay su jaree de su neexee. waaw dinaa jënd. dëgg waaye su naqaree tamit hmm. dinaa ko wax daal. mais mais nag boo xool même période tout safar gi sax jaay si café aussi tamit même bu ñu yokkee bu ñu yokkul doom yi tamit du neex ah parce que ah. nga ah. nekk en partenariat avec jaaykatu café bi si ah, ne ko kat bi li nga doon am nga ne waaw ñu ne la ñëwal jàpp ci liggéey bi dëgg la naa si ñu bari noonu lay demee daal mais nag Baye Fall Noble tamit war nañ xam tamit aussi nutrition café yi naka lañ war a mu utiliser ñu mën a xam ne quantité d'eau bii mhm. kilo café gi moo si war a dem waaw parce gars yi xam nañ ko ah parce que jaaykatu kafe yi wala jëwri nii nekk si ñiy segg waaw dañuy xam carrément quantité bu nekk si def libre bi waaw lu siwo siwo lay doon wala siwo bi siwo pen avant muy fees gars yëpp xam nañ ko quoi ndax yàgg nañ ci daal macha allah ñoom dosage sans dépense yi dosage bi ñu soxla rek ndax munoo ñëw si ay cant wala ay màggal waaw di naan café gu léché wala kafe ga nga xam ne mooy loolu gars yi bëgguñ ko ah, ah, dafa war a diis ah waaw na normal dugg si bopp yi. <laughs> soo boobu léegi maa ngi kaas kafe <laughs> maa ngi naan rek. macha allah loolu loolu kon am na solo. waaw day dem ba bokk ci yow daal. macha allah Baye Fall yi dañoo am jagle ci kafe ñoom moom <laughs> kafe mën na leen bañ a lor. macha allah bu ko defee sama saar gi nga xamante ne. waaw dañuy soxla yenn conseils yi. yu mhm. Marème di joxe dina ci am solo mais Baye Fall yi moom. waaw dañ ci am jagle. Mhm. macha allah yàlla def na ko ñoom dañ si am may. am nañ ci may voilà. macha allah kon loolu am na solo mhm. mais mais mais Marème kon daal. nan sensibiliser waat ñi nga xam ne ñoo nekk ci cuisine yi ñu bàyyi xel graisse bi ci ndawal yi ñu bàyyi xel tamit taux de sel bi mm-hmm. ak wax dëgg fa tamit naka lañ war a mun a def ba nga xamante ni bu ñuy servir mm-hmm. ñani jox loolu parce que xam nga lu def ci waañ bi lekk bi mën a équilibré mais aussi tamit foog nga recommander aussi beaucoup de fruits ah foog fruits di bari ci màggal gi nag foofu euh, Euh, comme ni ma expliqué sànq assiette équilibrée bi. boo xoolee assiette bi nii deux quarts yi fruits ak légumes la war a composé hmm. parce que boo xoolee dañu riche en vitamines dañu riche en minéraux. Hmm. am nañ tamit ay antioxydants de même que fibres yi si nekk nga xam ne ñooy yombal suñu digestion bi. Hmm. kon loolu yaakaar naa warul des ginnaaw ndax euh, su manqué rek mun nañu am ay problèmes de digestion am ay ballonnement. Euh, dem ba màggal moom ballonnement topp la. wala wala ay euh, biir yuy métteeg wala nga am ay reflux. RGO hmm. nga toog li nga lekk di génnaat. Hmm. donc yooyu yëpp aussi problème ay trouble digestif mën na ko indi. ça donc euh, lu ñu war a bàyyi xel la. Hmm. aussi di naan ndox lu bari te it bàyyi rek lekk ba pare rek toog. toog journée bi yëpp lekk rek toog yenn saa sax nga jug dox benn 10 minutes wala nga dox benn quinze minutes. dafay faciliter digestion bi. d'accord nga gën a gaaw a mën a reesal li nga lekk. bala ngay lekkaat voilà. parce que ñoom dañuy yëkkati palaat taajaat palaat. waaw kay mi ngi noonu. macha allah <laughs> mais nag est-ce que Touba dina yomb aussi itam dem doxantu ji am na ñoo xam bu doxantoo réer <laughs> yore seen kurus di weer de mën ngaa dox nii def ay. yooyu. Mm. macha allah nga def ay 100 pas yooyu ñëwaat. allah léegi léegi pour xorom bi. ak bouillon yi aussi. foofu euh, dama leen di bàyyiloo xel que ni. Hmm. ñun suñu réew bi dañ fi am nañ fi ay épices yi nga xamante ni ay épices yu naturel la. d'accord donc lan moo tax ñu war a daw dem ci buyon yi. surtout ça bouillon yi bëri nañu xorom. Hmm. bëri nañu ay ingrédients yi nga xamante ne si xamuñu lan la. Hmm. donc togg li ci neex maanaam lekk togg li ci maanaam lekk ñam li ci neex mooy nga toog nga xool ñam bi nga xam ne ñam bi am na lii am na lii am na lii hmm. mu leer la ni lii nii ay source yu sûr la am ay ingrédients yoo xam yu naturel la hmm. et que boo lekkee du la du la gàllankoor en fait ça c'est ci loolu am nañ ay épices fii yoo xamante ne si ñi ngi fii suñu réew donc jinjeer buñ ko xeeb gen euh, euh, jinjeer excusez-moi jinjeer euh, paprika ay kaani salaat mm. yooyu yëpp dañ koy utiliser pour dolli saf-safal suñu suñu suñu togg yi. d'accord voilà ay cannelle. mais mais euh, mais est-ce que yooyu ëpp leen doole am na fi am na si marché bi. d'accord yooyu yëpp am na fi am na si marché bi donc mën nañ ko utiliser. Hmm. gën a safal suñu togg te wàññi bouillon yi ak xorom bu bari bi. ça c'est vrai ça kon loolu aussi lu mat a bàyyi xel la. Mhm. et de boire aussi en abondance. waa ñi comme ñu ngi si période de chaleur moom. Hmm. il faut ñuy naan ndox lu bari. dëgg la il faut naan ndox lu bari dama am sama benn xarit l'autre jour mu ne ma day toog naqam mi day metti rek. Hmm. ma toog xalaat xalaat ma ne kii journée bi day kërti kërti rek ma ne ko est ce que yow yaa ngi naan journée bi ndox lu bari. Hmm. ma daanaka su wàccee guddi gi kese laay naan ndox. ma ne ko del naan ndox lu bari mais après dafa commencé def ko deux jours. gis résultat. affaire parce que boo dul naan ndox lu bari doo doo doo mën a doo mën a dindi yenn déchets yi nga xam day nekk ci sa yaram. ça c'est vrai mun na am ay cristaux yi nga xamante ne si day nekk si sa wetu naq bi. dafay hmm. concentré wu alors que ndox bu amee. Hmm. mun na ñëw liquide leen ñu dem macha allah mu nekk ay déchets yoo xam dañuy dañ leen di génnee. dëgg la wala ñu utiliser waat leen mais sinon bu dul loolu. mun nañ hmm. toog fi ñu toog donc di la amal ay euh, problème ak yu demee noonu. dëgg la mais par exemple ay bëccëgu màggal est que boo yandoo lekk di yandoo naan est-ce que naan boobu du favoriser fër. non moo tax am alimentation équilibrée bu baax maanaam da nga war ndékki. waaw da nga war a añ. da nga war a reer. reer d' accord diggante ndékk ak añ. Hmm. bu la neexee nga dugal fa benn collation. d' accord diggante añ ak reer bu la neexee nga dugal fa benn collation. Hmm. waaye ba a def ne Fallou Bey. waaw nga dem Touba wàcc <laughs> dix personnes ku ne woo la. fa lekkee. macha allah moom sa loolu am na solo. boobaa da ngay rey sa bopp. nga boo bëggee ba demee fii faa lekk mbaxal. waaw gis nga bëgg faa lekk dama daa fu ne nga dem fa lu ne nga bëgg ko lekk. ça c'est loolu kon am na solo. macha Euh, mais kafe gi moom boole ko ba tey si bernde ah wala kafe moom dafa bokk ak mbir yi. non café euh, moom day digéré wala wala café moom du digéré. café li digal la si ñun bu mu laal café gi. <laughs> bu mu laal café gi. <laughs> café gi moom nañu ko bàyyi ak ñun rek. gi moom suukar gi rek si laay ñëw. waaw mën na naan ay vingt cas si journée bi. dëgg la donc te doo bàyyi xel yaa ngi consommer sucre bu bëri. ça c'est vrai. te organisation mondiale daf ñu permettre daf ñu recommander. Hmm. ñu jël vingt cinq grammes de sucre par jour. te loolu mi ngi ci six hmm. morceaux suukar parce que benn morceau bu nekk quatre grammes. six morceaux si si si journée loolu sëñ Fallou <laughs> donc am na ñi nga xam ne nag si journée bi yenn saa yi yi dañuy jël poids te duñu xam sax lan la. alors que loolu. da indi ci benn excès. parce hmm. sa organisme ni mu mel mooy bu amee benn besoin. Hmm. nutritionnel. da ngay indi benn apport boo xam ne c'est égal à à besoin boobu noonu. d'accord bu ko defee nga mën koo euh, satisfaire. Hmm. bu ëppee da lay indil ay pathologie de surcharge wala mu indil la yeneen euh, jàngoro. bu fekkee dafa wàññeeku tamit mun na la indil ay carences yi nga xam ne après daf lay sonal donc lépp équilibre daf ci baax. dëgg la lépp daf ci baax. macha allah. kon loolu am na solo kon dama ñëwaat kon si sëñ Fallou bi parce que bi ma ñaanoon xanaa léegi nag waxtoom jot na sëñ Fallou. waaw waaw waaw waaw parce que keroog moom lu ñu may samedi ba tey daf ma toppaan. Ah. mbaadu mbaadu <laughs> kon loolu xam naa dañuy ànd ak jëwriñ mu mu yëkkati si kàddu yi. waaw ndànk ndànk rek. macha allah. xam naa damay tàmbali ma ma barkeloo Serigne Moussa Ka. waaw ci ay bëyit. Hmm. yoo xamante ne wax na ko eh, fu mu tollati. sabran jamilan mbàkke yaa wakirlu yaa wóolu rabbal xarshi maa la wóolu natt yu rëy bari jaloore ànd guddab tànk la mbër yey loore yaa fi demoon konaaki réeki gonkongo fekki sëriñ Tuubaa leen ma gongo yaa bari ay ndam bari jaloore yaa dem ba romb géej tuure yaa haji humra dem dem xarafa yaa dem safa dem marwata ak musdalifa siyaara fil madinatil munawwara mu neefu laa gàkkal xaraam nga sawara ahmadu njaay ma yoro ibrahima yaa leen xamal maqaama ibrahima cheikh Moussa Ka moo wax loolu te hmm. sunu maam cheikh anta ci téere bu tu nattoo di kerkeraanu awliyaa yi macha ci biir téere bi dem na ba ciy wax ci cheikh ahmadou bamba xaadim rasoul hmm. euh, cheikh ahmadou bamba hmm. mi nga xamante ni moom moo taxawoon taxawaay bëgg doon euh, liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. ku weddi seetal ahmadul mbakiyu bam laata doon ahmadul makiyu noonu yaa ko génne néegi mbakke baari sàndarma yaa nga naan ko ndar ngay jaari hmm. mu jaari ndar muy bëgg a mel ni daaru nu daal di koy jallax mu wéy ndakaaru soo xalamee yaari guddi yi ndakaaru ba dégg wax jëmbër ma wax nga waaru isa sakartu almabita wa zalika alamira wasabuta taarat ila aljihadi bil armai nafsi walakin zaba anni almaai bismillah sidna laa ilaaha illallah tëdd naa toog naa jóg naa xippi saay gët bàkk ahmadu ne ci moomay matal saay mébét wax ci moom ngir jubloo fàttali jàngaleem soññ sa bopp saay moroom ak mbooleem cheikh ahmadu bamba yaa mata àndal say kàddu dee su ko randal sa mboor mu ne su ko tuxal say gaay mukk iblis di leen gal gal mbàkke yow la nu àndal sunu diin yaa nu ko jàngal yaa tax ba kenn du nu faagaa gal yaa nu sagal sargal xamal nu mbegum boroom ci mbégte màggal Seydina Aliou man duma waaja waajaama waajal te ca pay moom Ahmadou Bamba Ahmadou kenn du foox sa waay wàccal ndax yaa maalikal mulki lii wasaata duna jawan fil mulki wal malakuuti dëhra wax jeeka kawe waaye ay coonaaki tiise ko taawu ahmadu la mu daj ci ay nattu déet muy amati ba faw sosal nañ ko ci njëlbéen waxal ko lu mu narul te fekkee ne ahmadu jubluwul ko du rasul julli naa ci moom te fasaro yi jikkoom dolli ñaan ci barkeem bépp koom koom ci barkeem la bamba ñàkkee moroom firnde ga feeñ ne ci maam Cheikh Ibrahima Ibrahima Fall borom at doom si jeey Fati Penda Lat Sukabe Ngone Jeey damel Dëcc fa Njogu damel Dëcc Law damel Samba Yaaya Fall fils de Mam Seynabou Ndiaye de Cheikh Modou Rokhaya Fall père de toute personne qui se dise Baye Fall Abori Dia lamp bi Bamba leeral nga dine ni yaay xalamal ñaata téere la bamba xaatim gisal ndigal yi ak xeeti tere yam ca lim digle na dige na teg ca fa firru ngir dawloon na lu bon wattuloon na sunuy ruux Cheikh Ahmadou Bamba ku tedd ki xaadim rasul daam borom brag bi sëriñ bi Cheikhuna Moodu Mbàkke yaay fi yiw yi dajee ki barke barke nga fees na say xasiida defar nañ ku ne ba mu tàggoog musiba say xasiida danañ tàggaleeg jaam bi yoonu bon yi defar xolam tàggale koog lor yi exilé par les hommes, mais amis, par le divan. Exilé par les hommes, mes amis, par le Dans chaque prière, dans chaque matin, ces écrits des galaxies de sagesse pure, guidant les âmes perdues vers la lumière sûre. Son enseignement, une symphonie céleste, des paroles, oui, des paroles d'or, des vérités manifestes Chaque vers, chaque lettre, un univers à explorer dans un monde cassé où seuls les âges peuvent dévoiler. Mouride fidèle, il a façonné des vies, uni des cœurs, bâtir des esprits. Son, es son héritage, un pont entre ciel et terre, un voyage sacré, une quête de lumière. Les voiles de l'ignorance, tu les as déchiffrés, révélant la splendeur d'une vérité sacrée. Son son savoir, une cosmos sans fin. Chaque enseignement, une lumière, une lueur du vent. En lui, le mystère et la révélation se mêlent. Ton être, un sanctuaire où l'esprit s'éveille. Cheikh Ahmadou Bamba, transcendant l'entendement, un phare dans l'éternité, une lueur omniprésente. Aujourd'hui, ces paroles traversent les dimensions. portés par des vents de pure déviation. Cheikh Ahmadou Bamba, au-delà des limites humaines, ton héritage perdu au-delà de l'infini, dans un amour serein. Mbacké Bari, fut témoin de ce glorieux départ. Exactement le samedi 18e jour du mois de Safar, pour une destination méconnue, on lui visite par, par Sababou Haybati, début de la réponse du Djambar. Djewol, Djewol fut témoin des pas de la sentinelle de l'islam, ou il a renouvelé son engagement au maître des âmes, à devenir auprès du sublime héritier d'Abraham, Khadim Rasoul, sauveur des hommes, ces dames. Dakar, Dakar fut témoin du passage de Sir Manoumbi, trois jours par misère et préjudice il fut enduré épreuve concortée par les conobstinés à noyer sous les galets des eaux rouges un cyprin doré Gabon Gabon fut témoin du la fi de, de Gabon Gabon fut témoin du venu de, fils de Mariama en quête perpétuelle du grade de Khadimoul Moustapha Cap Lopex Libreville Galwa et le peuple de Mayomba ont vibré de la présence de Cheikh Ahmadou Bamba. Diourbel. Diourbel fut témoin de l'arrivée du fondateur de Touba après Thiéyène et Mauritanie, le Baol retrouve son soldat, où il a terminé sa mission d'ici-bas, que nous découvrirons l'essentiel de qu'à l'au-delà. Bamba. safar 18 safar ba sëriñ ba waroon fasam wa arunahi fas yéene liggéeyali lillahi sababu dem ba moo doon ràmm mu ëllëg mboolem rasulullahi doonika diirug jamono xaadimu rasulullahi jours de joie accompagnés de bernets et de zikar. Huitième, Khalif de son grand-père a eu l'honneur et le plaisir de célébrer encore Safar. Sénégalais d'origine, de son dévouement, il a un événement mondial. Ahmadou Bamba, la solution. yow rek yaa jara kennal. L'événement le plus célèbre au Sénégal, 18 Safar. Ce qui nous redonne le sourire de par les Zikars, 18 Safar. On est au jour par les recoins On est au jour où les Bernes débutent jusqu'au jour du Magal, 18 Safar. للمصطفى نويت ما سنته الخراء وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخراء وإني أحمد هكذا eskey mbakke balla man duma waaja waajaama waajal te pays kenn du fa wax sa waay wàccal ñaata kaamil la ñuy jàng tiitu màggal ñaata kaamil la ñuy bind ci bëccëgu màggal ñaata kaamil la bind jiitu màggal ñaata kaamil la jàng ci bëccëgu màggal jamatul jamatul rekk ci ay daaraaki juma jàll ci groupe whatsapp na ci zikru shukru duñu bàyyi benn étape màggal gi teew ku di daw daw daw ngir teew ñii di kafay séddale boole ci di xelli meew ñi leen jox ginaar ak a saam faal di séddalay naan ak i ni aljana lay misaal wóor na chera faal màggal gi dafa yokki aal ay waxtu nga tiim taal fàtte tàngoor di matal say naan ziar kullu baay faal kullu yaay faal dof ey fi di jaalale benn message. Hmm. ba nga xam ne sénégalais dañ ko am. waaw benn gis-gis ci ñun ñu ñuy woowee Baye Fall. Baye Fall waaw. parce que soo xoolee bokk na li tax may gën a jàng daal parce que dañoo am benn vision bi ci Baye Fall. te alors que nekkuñ foofu. ban vision la ñenn ñi am si yéen. nee na marginalisé en fait. marginalisé d' accord. waaw wala ma ñëw si moom. d' accord gars yi. Hmm. ndax sunu maam Cheikh Ibrahima Fall da doon wax naan. Hmm. moom dafa dem fii lim jël tuuma. tuuma gi mu jëloon. waaw waaw mu ne nangu tuuma jurul dëgg. Mhm. ñu ne dafa la dañ ko mos a laaj lan moo la gën a mën a jéggale si yàlla muy nangu jurul dëgg. Mhm. joxe ñam. joxe ñam dëgg la. waaw da ko doon wax ndax Baye Fall fa lañ ne. dëgg la man tey ni ma melokaanoo nii sax daanaka amaana. waaw ñoo nii xam naa xaw na leen a bett. la waaw tey man maa taamoo ñëw nii man je presque toujours en laxasaay quoi. dëgg la moom laa yóbbu université moom laa yóbbu feneen fu ma jëm. macha allah waaw te tey màkk samay doon romb màkkaanu borom jamono ma tay <laughs> Serigne Saliou fa la nekk si fa la si cité Fadia ne ma kaay tay dëgg la ma am envie solal la bàyyi la xaat bi ma sol. ndeysaan ndeysaan ndeysaan nekk fa la si cité Fadia. dëgg la waaw moo ma ko jox ne ma yóbbul lii yóbbul lii. ba may dem Baye Njañ moo jaar si Njañ ne ma kaay ma yeesalaatal la ko. <laughs> ndeysaan macha allah moom fa la chaque instant ay Baye Fall lañ ñu gën maa dimbali ci sama Baye Fall. dëgg la début bi xawoon naa met ndax xaw ma lu bari daal. dëgg la ñun Serigne Cheikh Fall borom digal la ñu yaakaar fa la ñu yeslu. dëgg la waaw kon nit mënuñoo génne ci Baye Fall. macha allah société bi dañ leen jël doggu leen fenn ba nga xam te ñoom ñëpp gars ay diplomate lañ ko waa. ndax bien mais mais mais yow mais yow yow ban dégg nga am si Baye Fallisme. man waaw maa la koy wax naa la être Baye Fall est une sagesse. oui seenu Baye Fall c'est la classe. Hmm. juste en faisant face vous notez l'élégance et la noblesse. seenu Baye Fall on privilégie les actes Ibrahima Fall là pour notre parabole. allah parce que démb. waaw kenn woon doon Baye Fall. Hmm. tey ku jàq Baye Fall ngay wuyoo daal. dëgg la waaw démb man dama koy bés si boobu sax si laa bëggoon ñëw. Hmm. waaw parce que c'est un cri de cœur quoi. waa waaye je l'ai avec le cœur. dëgg la waaw parce que. Baye Fall dañ leen a jël yóbbu leen ci benn bloc ba nga xam ne nekkuñ fa. dëgg la koo ci jaxasool di nga xam ne dafa fees dell. macha allah waaw. dëgg man maa ci gën a xeebu man la ci yàlla nattu mooy war di. di wax nekk texte yeeg islam yeeg waaw clip yeeg ñoom seet. waaw mais ñoom ñoom dañoo féetewoo jëf gi rek bàyyi wax ji. dëgg man nag la ma yàlla natoo ma nekk benn ambassadeur ba nga xam ne moo tax fu ma dem dama leen damay dam ñoom laa jëmmal daal. dëgg la te moo tax may jom ma def lu bari. macha ndax ñoom parce que dama koy faral di wax rek naan leen su kenn nit defee. waaw duñ wax kooku dañuy naan xoolal Baye Fall yi. dëgg kon ñun Baye Fall nañ gën a xoolaat suñu taxawaay. du du du yàpp suñuy morom di ko jaare si ñun. dëgg la waaw ma bëggoon na texte bi nga teewlu ko. bisimilah après yow yaa ma koy analyser. jeex na amul problème démb démb metti woon ba kenn bu woon doon tey ku jàkk yow lay jéem a doon magu fi te ñëpp bàyyi lañ koy woowee moom mi dëkkee mbégte di dox di bëggee fu mu romb ñépp ànd ak mbégte mu naan la faal ziyaara lu nu fàtte fasaale da di kenn teg ci gëm. lenn dox mu ku ñu koy jaawale ndax dafa góore teg ci góore Baay Faal yombul boo ci nekkee di nga dégg lu ne waaye bul bàyyi Baay yombul boo ci nekkee di nga ne waaye bul bàyyi boo jugee ngir doon baay faal sa yaay di booy sa baay di jooy dëkkandoo ya naan moom lu ko dal moom de sànku naa yaay booy baay booy bul di jooy laxasaay bi jaa mu yàlla laa yaay booy baay booy bul di jooy laxasaay bi jaa mu yàlla la ñoo ngi fépp te bàyyi nañu lépp ñi di leen xarab ñi di leen xeeb ñi la naan xoolal ma ñii rek tekki dara démb ak tey dëkkee waar fanaanu si kaar bi laaxi ñi rekk a di jàmbaar da leen di tooñ ñu naan la sa baay ñoo ngi tuub tey jéggalu Ils n'ont pas le temps de répondre tous ces gens qui passent tout leur temps leur pointant du doigt moi de par ma voix étant sur leur voix jure à haute voix qu'ils sont dans la bonne voie de kewaar fanaanu zikar billaahi ñii rekk di jàmbaar fees dell teg ci woyof toll da nga leen di tooñ ñu naan la saa baay ñu ngi te jégalu Baay Baïfal qui était auparavant un nom banal attribué aux hommes, anormaux, infernaux, al, hamdulillah, Dieu. Merci, aujourd'hui on n'a pas besoin de connaître ton nom, car le nom Baïfal est universel, ça l'éternel, être Baïfal est une. Sagesse, chez nous faisant face, vous notez, l'élégance et la noblesse, chez nous Baïfal on privilégie les actes aux paroles, c'est cet art agréable qu'incarne cher. Ibrahima Fallam pour notre parabole. Grâce à Bourdialla, les Baye Fall sont au service d'Allah. Il se réveille en disant Alhamdulillah. Et se nourrissent de La ilaha illallah. et montre leur joie à travers ak sa tabarkallah fa allah cey maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Dof Diop ma ne la Baye Fall ci xol Baye Fall ci ruu Baay Faal ci jëm ak doxalin Baay Faal ci melokaan Baay Faal ci biir Baay Faal ci biti Baay Faal sunuy yëngu Baay Faal sunuy dal noblesse di juddu sagesse si doxalin happiness di dox saa su ne sunuy xol <laughs> ki nu am ki ko am Dof Diop waaw am lu dàq ko mais Baay Faal yi kañ la nekk ay Maam Faal <laughs> waaw non non taxi bi moom laa bëgg a ñëw wax mais dama ko bëgg laaj kañ la Baye Fall di nekk ay Maam Fall. <laughs> waaw maa lay wax sànq naan la magu fi. waaw te ñëpp baay lañ koy woowee. dëgg la. waaw macha allah. waaw maam xam nga Baye. waaw. maam Cheikh Ibra mooy maam daal. dëgg la waaw kon Baye Fall ay Baye. ay ay rek lay mës a doon <laughs> euh, mais léegi aussi man déglu naa texte bi. di ko rafetlu aussi. mais maam sëñ Fallou mun naa tuddee texte bi écotrip ou bien parce que mm-hmm. aussi ñun si monde bi nekk hip hop bu fekkee da ngay wax si sa bopp. Mm-hmm. écotripping lañ koy tuddee égocentrisme. Mm-hmm. parce que aussi gis naa aussi da nga jëmmalaat bàyyi fa si image ak si lépp quoi. donc aussi tamit def nga tuuti antithèse par rapport ak ñi nga xam ne da leen di xool di leen gis ak ñu mat ak yooyu. fekk yéen da ngeen a mat sëkk. xam en général euh, man texte bi mu gis dafa mel ne benn réponse man dama wax ne man soo ma doon créer group du ko tuddee noir wala black da ngay gis black à chaque fois naan black black. Mhm. noir noir. Mhm. wala jigéen ni buy nekk artiste naan sister sister. Mhm. doo gis góor bu bu bu tuddee boppam brose wala gis tubaab bi bu tuddee boppam blanc. li tax aussi yow nga nekk Baye Fall ba pare di tontu quoi parce que mu gis texte dafa nekk genre tontu quoi parce que nga ne gars yi yàgg dëkkal fu ñu dëkkul dañuy def lu tax nga tontu te tontu. sama bopp en fait. d' accord. waaw mais gars yi laay waxal. gars yi ngay waxal maanaam fii da taxaw taxawaayu. waaw donte du leen neex ndax tuuma gi. waaw teggiwu ma ko ko quoi. waaw mais man juste pour ñu xamul. dëgg la ñu dem gëstu ji suñ gisee loolu. oui dem gëstu parce que man sama si yëpp en général français laa koy def quoi. dëgg la waaw. macha allah mais question mujj ban différence moo am par exemple tey. Mhm. maanaam naa ko waxee artiste lan. Mhm. da ngay gis njooñi. Mm-hmm. gis njaxas li fekk sa ay Baye Fall mais ban différence moo am si Baye Fall nii ci saayir mm-hmm. ak Baye Fall si baatin ban mooy seen différence. waaw Baye Fall su ma lay wax lan mooy Baye Fall Baye Fall mooy ka nga xam ne tey ñooñu style bi moo leen neex en fait. d'accord parce la nga xam ne. waaw mm. lay gën a jox cër. dëgg gars yi lay admirer en fait. waaw man mi si nekk di ko solal sur scène. Mm. damay gis ne gars yi dañ may gën a jox cër en fait dafa doon lu aar xam Baye Fall bi dafa xaw a aare daal. Ah, gars yi dañ ko bëgg. esthétique bi dafay waaw esthétique bi da koy bëgg daal parce soo ma gisee man may ñëw. Mm-hmm. ak sama xeebu man su ma soloon tey li gars yi sol nii. ñëw taxaw xam naa ne benn gëdd bi ma gars yi war a jox duñ ma ko jox en fait. apparence bi apparence bi. tey da ngay ñëw dèjà da nga may xaw a jox benn cër bi di ma xaw a naan. su ma ñëwee taxaw sur scène premièrement da naan waa kii lan la war a wax. dëgg la parce que yenn école yi ma doon dem. maa ba nga xam ne fa laa jàngee de passage mooy lycée Seydina Issa Rouhoulahi. Hmm. lañ amee bac léegi nag su may soo ñëw taxaw yor say njañ sol sa njaxas def sa caaya mhm. dem ci benn école wala benn événement dañuy naan kii lu mu fi nar a def dëgg la kii xanaa nañ sañu fee jàng ay de <laughs> yenn kii la ko ah. mi yi nga wax sànq fa lay laay gën a joué daal prestation yeeg ñoom seen macha allah waaw léegi nga ñëw taxaw da naan waa kii lan la war a def fii hmm. kii xanaa sañu fee sikar kii sa yaaxa sañu fee def lii hmm. su ma ñëwee premièrement ma ñëw wax la genre slam wala ma ñëw commencé làkk français da nga may gën a jox benn cër bu ma fet dina la permettre yow après sama prestation di ma ñëw laaj ma lan mooy Baye Fall donc yow man man maa ngi jéem a véhiculer mhm. ci la nga xam ne le message ba xam ne moom la sa maam Cheikh hmm. mooy kan au fait waaw man loolu daal daanaka moo ma xaw a gën a bàyyi ci aar bi yow daa benn missionnaire nga boo xam ne nga jaare sa business ci aar bi waaw loolu am na solo mais mais Prime bokk na ci say œuvre euh, nga bind ci 18 safar comme ça ñu xool prime BK laa ilaaha illallaah Ibra Faal laa ilaaha illallaah xam naa boobu la ñuy tëjee rek dof xam naa temps baa ngi kii d'accord maanaam xam naa boobu la ñuy tëjee ndax temps temps baa ngi daw. mais aussi tamit boo xool euh, parce que li ñuy dese si minute je pense que c'est douze minutes. douze minutes ok euh, d'accord kon ñu bàyyi kon pliment d'accord vas-y. Dans l'immensité de l'existence, une âme exceptionnelle, de par sa mission, le messager du ciel. Sa présence transcende les limites du réel. une force mystique, une lumière éternelle. Son esprit, une onde, un écho infini, un souffle divin qui jamais ne finit, portant un message qui dépasse tous les âges. À travers le temps et l'espace, il voyage. ngir yàlla yërëm dafa takku xidma ba yàlla gërëm jël soril tàggale koog waa këram mu dund fa coono taxul mu gëlëm moom cundum ci biir lëndëm xol bay dund alquran may bëggam xel mi xalam mu saxoo xaatim xaatim xaatim ci sangam lépp boppam dégmal yàlla ak la mu lëm ca àllub gabon la ko ay matt wër sam nattu natatuñu lépp naan sënkëm dal ci kawam mu def ne tey la mu jëm di kennal boroom bi ci lépp nguuram face à l'adversité son cœur demeure inébranlable chaque épreuve un chapitre de son livre impérissable son endurance une montagne indomptable son amour un océan insondable yàgg baax yàgg gore yàgg farlu yàgg tabe yàgg sell yàgg kawe yàgga sonn yaa bëri jaloore la ilaha illallah yaaram la ilaha illallah la ilaha illallah ahmadu caalitul ndax gëm yaaram rëccuwul tànnam ba ca jàkkay këram jom jeeg ngor gee ko gunge ca fa mu jëm tax nag wa naaw ak i béjjënam ndakaaru ñu joxoñ ko néeg bu lëndëm sërëxël dindi kaalaam nangu kaamilam rabbu ya sar jam sobe sa mën koo ëlëm soxna si jaara maam jaara jajji nanguwul lu ko nërëm ndakaaru ndar gabong doyo ndakaaru ndar gabon nga yottulam ndakaaru ndar gabon nga yottulam ñu yóbbooti gànnaar ngir mu wedam naar ya far gëm ku ne xeeb xam-xamam jaayante ci moom mi yàllaay xamal ëllëgëm dem na jolof di wut ngërëm dem njaareem tarbiyey gërëm ba dellu tuubaa fay kërëm moo ko sanc ca njëlbeen muy dëkkam Au-delà des mots, ton de l'âme, En toi, le mystère et la révélation se mêlent. Ton être, un sanctuaire où l'esprit s'éveille. Cher Ahmadou Bamba, transcendant l'entendement. Un phare dans l'éternité, une lueur omniprésente. na àdduna xam njëriñ li te wut du murit du jullit tey du bamba mbooleem mbindee fi la wax ñu yërëm te bind na ko fu sax bamba mbooleem mbindee fi la wax ñu yërëm te bind na ko fu sax Touba jërëjëf borom Touba. sëriñ na fi yàgg ci wér. amiin waay. jërëjëf borom na fi ay tawféex yi tawféex tuuru barke borom Touba. di dugg xol. jërëjëf borom Touba Mawlana Aliou na sa baat wér yal na nga làq ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall Seydina Aliou na sa baat wér Seydina Aliou na sa baat wér Seydina Aliou na sa baat wér soxna Mariama Diop dundal soxna Mariama Diop dundal xam-xam bi leer na te it kawe na soxna Mariama Diop dundal dundal ñun bëgg nañu Ibrahima Khalilu Plume BK macha allah kàddu gi gën a jib ñun bëgg nañ la wallaahi. dégg la mosoo fi ñëw taxaw dañu nettali ay cas yow yaa di plume BK. BK noblesse ci Baye Fallisme la. doctrine bu leer la Cheikh Ibrahima ko rëdd. Hmm. jaar ca moom bay Fall noble la. Baye Fall tam dundal. dundal waay daf Diop. Black Label na gën a yaatu lool. amiin waay technicien bi yow itam. dundal Jibril message bi leer na gën a ñal xat jëm kaw. <laughs> macha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah yàggatul dara incha allah plume BK Serigne Fallou Bey projet Magal incha allah rabbi lay demee noonu ñi nga xamante ne ñu doon teewlu dégg la yàlla na yàlla def tawfiqu zahir ak joj baatin baatin macha allah salliyan ala nabi wa sallimi waqdi bihi hajata kulli muslimi macha allah salliyan ala nabi wa sallimi amin waqdi bihi hajata kulli muslimi amin jërëjëf macha allah jërëjëf jërëjëf en tout cas aussi euh, mu nekk euh, benn moo de la fin ku ci nekk si yéen rek euh, dama koy soxlu mu nekk Mariam ak si naa leen nag yéen ñëpp ah, ñu toog saawar bi. mooy que ne ku ci nekk si yéen ban objectif la fixé wu pour sàkku ëllëg ngërëmal sëñ bi. ñu commencé si Baye Fall Noble comme ça mu nekk suñu dernier tour de table. Mm-hmm. bon ban objectif nga sas sa bopp pour ëllëg nga sàkku ngërëmal sëñ bi. waaw ndax daanaka si laa ne nii. Hmm. muy véhiculer message. d' accord ñi nga xam ne su dul loolu ñun dañuy nekk ci xidma gi. dëgg di liggéeyal sunu sëriñ. waaw di ñaan mu sàq fi dàq. waaw gën ñu gunge ci liggéeyal saa maam Cheikh Ibra nga xam ne moom mooy sunu bunt. macha allah di sëriñ Cheikh faal borom ndigal. Hmm. waaw ku ne dégg na doole Baay Fall Cheikh ndigal. moom la ñu yaakaar mooy sunu sëriñ. macha allah sax ci ndigalam lum ñu digal ñu def lum ñu tere ñu bàyyi. Hmm. islam bi nga xam ne moom ñun ñu ngi si. waaw ñu ngi siy sàkku. ku dégg ku si dégg la nga xam ne rek sa sunu baat di nga di nga dem jàngiwaat. xoolaat lan mooy liggéeyal maam Cheikh Ibra ñu bari tey doon nañ ay Baay Faal ci sama jëmm ju xeeb yi ji ndax. macha allah ci li ma def dégg ma may salaam ñu pare di ma laaj di ma laaj ba far si la ñu ut jébbalu si sëriñu Baay Baay Faal daal dégg la waaw di sant di leen gërëm ci invitation bi nga xam ne dernière minute lañ ma programmé di sant sëriñ Fallou Bey ak Plume BK ñoom sa samay frère de Plume lañ dégg la di sant makkaanu borom jamono ci laxasaay bi nga xam ne moom moom moo ma ko jox macha allah di sant Baay Njañ borom Njañ yi borom Njañ yi mu tegal ma ko ci loxo Baay Faal ndigal yëpp ñoom Al Sadiq ñoom Saliou ñëpp waaw di sant di gërëm sama yaay soxna aw Guèye ak ay raqam waaw moom amul ma si moom sago di caar ñëpp daal ay Ndar Fall Lakasaay maam Salih Koutir macha allah ñëpp daal maa leen di bëggee rafet na di am contentement ci invitation bi macha allah jërë ngeen eh, nga sas sa bopp pour ëllëg danga ndax nga làkk ngërëmal sëñ bi ban mission la bon dama wax wax solo oui muy euh, hmm. du du du dégg la maanaam benn yoon bu sëñ bi tracé la. Hmm. parce que ñu bëri bi ñu ma xoolee automatiquement dañuy yaakaar ni euh, murid laa. parce que si murid si ay murid laay ëpp lu may nekk. macha allah yooyu noonu. macha allah mais man taalibe Maulana Cheikh Ibrahim. macha allah macha allah macha si ëpp. waaw euh, si murid yi laay toog. parce que damay naan. ñoom lu ñu xam si sëñ bi. waaw man tamit yoon la ma xam ko si. parce que damay bind. waaw kon ça veut dire que man mii di bind sax amaana. man maa war a gën a xam si sëñ bi que ñoom. yooyu noonu loolu moom loolu moomu dugal ma bind si sëñ bi. luy nuyu de passage. Euh, staff plume BK. Euh, parce que à chaque fois ñoom ñooy euh, ñooy ànd ak man. depuis un an. ñuy liggéey si ay projet et tout ça. ba yàlla dogal tey jii ma créé benn collectif. ñu mm-hmm. éco kii démb sax dama leen envoyé message parce que dama yaakaaroon ne man su ma ñëwul eh, atelier du am. dëgg la ma envoyé leen ne man Ousmane man atelier day am. parce que man taxul ni nekkul man maa tax ngeen ni salaam et tout ça. dëgg la di nuyu sama famille. Euh, jiital ko si sama yaay. Hmm. Ami jóob sama yaay Diop la sant. moo tax Diop nii lu ma leen wax rek mooy loolu. <laughs> mooy loolu. Pape <laughs> euh, sama mag ji euh, El Hadj Ndiaye. waaw Lamine. waaw ak suñu nouveau marié bi Moussa Ndiaye. macha allah moom temps yii daa takk soxna. sëñ Fallou gis na ñoom Beka. ñoom Beka ñooy ñëw si màggal gi di ko décorer rek mu ne mbaxana awso yi foo gis mbaxana awso rek ñoom Beka la. xam nga sa ñoom seen mbaxana guddi yi. foo <laughs> foo seen si màggal gi baax. parce que xam naa xam naa ñooy def liggéey bi rek. non man moom man man man pour pour vous su may dem bu ma xasee bu dugg jam ñaajo hmm. doole mooy woowee sëñ bi Ndiaye. <laughs> ma yóbbaale sama gorosu singom Hollywood. su may départ beeg si jam ñaajo del ma sëñ Diop. macha allah macha allah. ah kon baax na yàlla baax na soxna Marème lan mooy sa objectif yow. vraiment objectif bu taalibe pour ëllëg nga mën a sàkku ngërëm. Euh, daf ma gën a jegele yonent bi. macha foofu foofu man foofu laa nekkee sama point faible. Hmm. waaw ndax ndaxte euh, loolu yaakaar naa day tax nga gën a xam fan nga ne te it euh, day tax nga gën a nekk ci yoon bi surtout bu dee yaa ngi gën a gëstu bàyyi xel source yi surtout comme euh, li bàyyi Fall doon wax sànq. Hmm. comme li mu doon lépp ba li Baye Fall doon wax sànq. di naan Baye Fall yenn saa yi dañ leen di dañuy dañuy am benn préjugé ci ñoom. Hmm. je pense que loolu li koy indi rek mooy bañ a dem ci source yu xool. Hmm. dëgg-dëgg lii fan la jógee. Hmm. nga xam jëf bu ne àtte bi lan la. je pense que loolu boo koy def ci ci jëf bu nekk rek doo gaaw doo nekk kuy gaaw a réer. macha allah voilà léegi euh, damay bàyyi damay ñëwaat ci mbirum lekk bi aussi. waaw si jus yi laay ñëw foofu. donc damay bàyyi loo xel gars yi rek. donc ñu gën a privilégier suñu fruits locaux yi. yu ñu am fii defar ay jus bisaab jus buy bu eh. la neexee aussi mën nañ def mélange jël fruits yi defar si ay salade de ak yu demee noonu parce moo gën a baax seen wér yaram par rapport ak jus yi nga xam ne si industrie yi lay jógee la plupart dafay bëri suukar dafay bëri ay additif hmm. ak yu demee noonu macha aussi ci waañ bi dinañ seetlu que ni góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ñooy nekk ci waañ bi hmm. donc loolu dafay indi benn entre aide bi nga xamante ne si dafay a raffermir yi ça c'est vrai dafay gën a raffermir lien communauté yi donc hmm. man yaakaar naa hmm. booloo ba waru yam ci màggal donc dafa war a demaat ba ci biir kër yi gën a boole nit yi ñu gën a nekk benn ndax euh, ndax bu ñu teg ñëpp toog yaakaar naa loolu dafay gën a boolewaat nit yi ça donc maa ngi maa ngi euh, Euh, sant ñëpp di gërëm ñëpp. voilà di leen ñaanal jàmm. macha allah comme ni ko Hippocrate doon waxee que ton alimentation soit ta médecine. donc ñu bàyyi xel bu baax ci suñu alimentation. macha allah yaakaar naa dinañu jëriñ ci lu bari. loolu am na solo seen euh, seen waaw kàddu gu mujj gi ak looy sax sa bopp la nga sàkku ngërëmal sëñ bi. waaw jërëjëf waroon tubaab. <laughs> saa yi tey damaa bett wallaahi. tey lépp moom la waaw tey damaa bett. tey lépp moom la tey Kaffrine ah, ndeysaan wax émission ñëw. macha allah mu nekk lu yéeme ñu bokk daara mu nawiri sudur. ah loolu dana waaw waaye lu woyof lool. dëgg la waaye ñu bàyyi ko rek. waaye nag tey def na fi lu kawe waay. tey moom def na fi lu kawe sëñ Aliou. xaw a jaxasoo rek waaye. macha allah. <laughs> Ah, xanaa di di di ñaari classe sax waaw nekk murit saadix macha allah doon Baay Faal ah loolu am na solo ñaaree rek dafa xaw a jafe loolu sax dégg la waaw loolu laa bëgg a doon doonaguma ko nag yàlla na la suñu borom bi jàppale macha allah ginnaaw loolu damay sant sëñ Ousseynou Fall waaw mi nga xam te ne moom moo nekk moom la ñu Chibra booleel. dëgg la nekk fee nekk ca campus Kaffrine. ndax maanaam bu ñu demee bay tudd turu yàlla bi moom. macha allah waaw ah, ndax nekkoon nañ Kaffrine jaxasoo loolu sax. Hmm. Ah, waaye xam nga mën naa si dur moom gars yi dañoo baax tellement. boo ñëwee ñun ñoo lay seen bopp. def la de jéem la def murit. dëgg la ah, di leen sant ñoom ñëpp ñoom ñoom jëwriñ da hmm. di sant ñëpp daal ñu sant ñëpp ñëpp ñëpp. macha allah macha allah waa DMS ñëpp national ak. waaw Kaffrine ak Kaolack. waaw international ñëpp. dëgg la waaw di leen ziar bu baax a baax. macha allah wax ni. su ma limee rek damay juum. dëgg la di di sant sama yaay bu baax a baax. ndax ñun suñu waa kër. waaw ñëpp ay tijaan lañ. ah macha allah <laughs> macha allah. mais <laughs> man xam yàlla nga saa yu. Ah, ah, xam naa dinaa sëñ Fallou mu indil ma la sama studio ba sëñ Fallou. foog nga yóbbu sëñ Alioune sama studio ba. comme ça nga eh, eh, gars yi enregistré ko fa dara. may ko fa benn vidéo. <laughs> incha allah sëñ Fallou kon looy tëjee parce que ñu ci si waxtu jeex na ñuy def keppaar gi ak si nan. jeex na alhamdulilah jërëjëf dof ñu ngi lay sant bu baax te it di sàkku itam mboolem li nga xam ni sëriñ bi bëgg na ko ba taxoon mu wax ne nañ ko santale yàlla hmm. ci bés bi bu yegsee ñu ñu am ko fii ci émission bi dëgg la mboolem ñi doon teewlu mboolem ñi doon bàyyi xel ak mboolem ñi nar a dabaat émission bi ñoom itam hmm. ñu gis seen bopp bu baax a baax ci li nga xam ni moo di émission bi macha allah liggéeyal sëriñ Touba nag dama koy wax lu bari nañu aj suñu yitte fu kawe bañ a def ne rek ay taalibe lañ yoo xamante ne dañuy dund nekk murit après ñu faatu ñu nekk ci ñi nga xamante ne ñoom lañ doon wax mag ñi te ba ñuy nekk ci Sëriñ ay ndaw lañ woon dëgg la ku mel ni maam Thierno Ibra Fati mm-hmm. ku mel ni Gaawaan ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall woon hmm. ba ni ñuy nekkee mag ba fi bàyyi ko mm-hmm. waaye histoire fàttewu leen macha allah mel ni soxna Jaaratullahi alayha ku mel ni soxna Aysatu Gaawaan ku mel ni soxna Maymunatu Mbàkke hmm. ñu mel noonu ay ndaw lañ woon Sëriñ Tuubaa tarwiyeen bañ am liñ am ñun en tant que ay ndaw am nañ ay objectif ci yoonu murit hmm. ñu ngi ñaan yàlla nag mu defal lu am tawféex am ay njaboot yu barkeel yoo xamante ne dañ leen di sëmbërtël def loolee sëñ Tuubaa waxoon sëñ Masamba Masamba ne ko euh, sëñ Moussa Ka ne Masamba hmm. sëmbal ci géejug Bamba sangu ba set bul def ne rek koo xam ne da ngay sóobu te tooyoo da ngay gajaf kese loolu da ciy ñaawee rek kon ñu nit danañ sóobu ci géejug Bamba sangu ba set wecc nit hmm. ñu am ci ay njaboot yoo xam ne ci lañ leen di xërtal teg leen ci te it ñu nitam ñu dëkkee suufelu di góorgóorlu baax a baax ci yoon bi ndax du dara du dara lu dul bëgg liggéeyal sëñ Tuubaa moo tax ñu nekk jëwriñ daayira wala moo tax ñu nekk ci daayira di nam nabi di lal basan yi hmm. wala moo tax ñu nekk di ranger daal yi wala di séddale café yi tey buñ duggee ci salaam bi loolu laay wax Serigne ne ci daayira bi hmm. ak Serigne Fallou Bey bi salaam bi bu leen kenn wuutale macha allah nekk Serigne Fallou Bey xamante ni liggéeyal Serigne Touba lay def fépp fu mën nekk di wati hillaahi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon samedi ñëpp rendez-vous complexe bu Pikine deuxième édition Grand Prix ak sa mbër bi ah merci beaucoup <laughs> eh, di ko jaajëfal eh, di jaajëfal sama gan yi nga xam ne tey ñoo fi nekkoon di jaajëfal suñu doon doon 14 heures ba léegi nii di ñaan ñëpp aussi màggalu jàmm c'est 48 mission Keppaar je pense bien di Black Label mais samedi ñu ñëpp ñu ngi leen jox rendez-vous complexe culturel Léopold Sédar Senghor bu Pikine ci Grand Prix Cité Lamine Niass d'Islam ngeen ñëw seetaan foofu suñu compétition foofu lay déroulé yàlla jàmm yàgg Sénégal yaawut publicité sur yow mi bëgg sport si sa biir xol est-ce que yëg nga ni expert nga ci sa sport préféré ak 1xBet